الرحمن الرحيم نون والقلم وما يسطرون الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى wajcal kalaami rachidan wa murshida wa fikrati nawir wa qalbi arshida anta alladi allamta luqmaan alxikam waliya habbil mustafa xayra chiyam mbokk yi ñu seetaan ci biir réew mi ak ci bitim réew ginnaaw bi ñu santee suñu borom tabaraka wa taala julli ci yonent bu tedd bi sayiduna muhammadin sallallahu alayhi wa sallam ñi ngi ñaanal alxalifatul am cheikh muhammadul muntaqa yal na ko fi yàlla bàyyi te wéral ko te mottali ay naalam noonu la ñuy ziyaara di ñaanal kilifa diine yi ci sénégal yépp yàlla na yàlla guddal seen fan te mottali seen i yéene ba liñ bëgg ci diine ji yàlla na suñu borom tabaraka wa taala defal leen ko lépp di yiw lépp di rafet lépp di teraanga incha allahu taala mbokk yi seen émission booley alquran yi nga xam ne moom lañ leen amal te compagnie Alaaji Sëriñ sekk di leen ko may ci seen youtube yaatal mbindum alquran ngeen di ko am ay bis bu jot di ci ànd ak seen mbokkum daara al oustaz Omar Silla waaye mu feggoo ceeg sëriñ Maxtaar Kebem Cheikh Saalihu Mbàkke di borom xam ñu am mbégte lool di bokk ak moom plateau bi di ko ñaanal yàlla gudd fan ak wér yàlla barkeel ko yàlla yokk xam-xamam ci barke alquranul karim waaye fàttewuñ ki nga xam ne mooy suñu technicien Serigne Moustapha Sarr mi nga xam ne mooy mooy diviser vidéo yi mu mucc ayib lool yàlla yàlla defal ko jàmm waaye fàttewuñ suñu xaritam Serigne Mbacke Sourang mi nga xam ne mooy taxawee émission yaru ak yare tey jii ñu wutu woon ko fi waaye incha allah xam naa bii di ñëw di ngeen ko am sëñ Mbacke ñu ngi lay nuyu bu baax di la ziyaara te mbooleem lu ko gàllankoor rek yàlla nekk jàmm ak xéewal fàttewuñ sëriñ Fallou sekk mi nga xam ne mooy coordonné liggéey bi ba mu ba mu jaar yoon ak alaaji Daam Touré suñu xarit di leen ñaanal jàmm ak xéewal ak mboolem ñi nga xam ne ñi ngi topp émission booley alquran yi ci seen youtube bi nga xam ne fala lépp di jaar di leen ñaan rek ngeen gën a abonné ngir mboolem euh, jotaayu alquran bu ñu def mu mën a agsi ci yéen ñu ngi nuyu waa Kajoor di nuyu waa Tiwaawoon di nuyu Jaamal nuyu waa Fass Touré fàttewuñ daarul mooti fàttewuñ jaareem fàttewuñ waa saalum itam waa kawlax ñu ngi leen di nuyu ñoom ñëpp buñ limee rek mën nañoo juum waaye képp ku ne ci région ba ak département bi ak borom xam-xam yi ñu ngi leen di ziyaara di leen nuyu fàttewuñ suñu xarit al imam Baye Serigne Diop ca kaolax fàttewuñ tam Cheikh Mouhamadul Bachir jóob ca jumaay Cheikh Mouhamadul Mourtada ja di suñu xarit di suñu sëriñ ñu ngi lay ziyaare bu baax a baax a baax mbokk yi laataa ñuy dugg yéen ci émission tey bi dañuy jox sëriñ Maxtaar mu nuyoo sëriñ Maxtaar ñu ngi lay wax asalaamaaleykum wa rahmatullah waaleykum salaam wa rahmatullah Cheikh Omar Sylla maa ngi lay nuyu bu baax te di la ziare di nuyu ñi nga xam ne ñi ngi topp émission yi fu ñu mën a nekk ci biir réew mi di suñuy mbokki daara daara nag lu yaatu la kay jàngale kay jàngulu kay jàng kay jàppale ñoom ñëpp ci daara la ñu ngi leen di seet di nuyu saahibul fadila a Cheikh Mouhamadul Muntaqa di siyaare njabootu Sëriñ Tuubaa gépp waaye di nuyu kilifa yi diine yi ci gox yi nekk yépp ci biir réew mi di nuyu Alaaji Sëriñ Seck di ko siyaare di nuyu Sëriñ Fallou Seck Sëriñ Dame Touré waaye di nuyu waa C3S fu ñu mën a nekk ci biir réew mi seen i banqaas ñu ngi ñu ngi ñu ngi nuyu bokk ya fa nekk yépp di nuyu sëñ Moustapha Sarr mi nga xam ne mooy suñu technicien bi ànd ak noonu ba liggéey bi rafet lool seen mbokk seen xarit Maxtaar ki benn jërëjëf Maxtaar ci nuyoo bu am solo boobu di la ñaanal jàmm di la ñaanal xéewal waaye nag di la wax ne sañse bi moom tey tubaarkàlla alhamdulilah man damaa jàpp ne waa alquran lu baax ñoo ko yeyoo ndax ñoom ñooy ahlullaahi te suñu yonente bi sallallahu alayhi wasallam danay ahlul quran wahum ahlullaahi wa xaasatuhu ñooñu nag ku bëgg a teraangay àddina yaakaar naa war nga leen a bàyyi xel ndax yàlla ba na leen xel yonente bi sallallahu alayhi wasallam ba na leen xel alquran dafa barkeel ba lu ci laal barkeel ka koy jàng gën ko ko jàngul ka koy jàngalee gën ko ko jàngalewul ka ci yëngatu moo gën ka ci yëngatuwul yàlla nañu ci yàlla xiir te kenn du ci nekk di ko rëccu àddina àllaaxiraa rawati nag waaw yàlla nañu ci yàlla xiir te dëppale ñu ak ay ndigalam moytandikuloo ñu ay terem sëñ waxtaar suñu laaj bu njëkk ci boole tey mi ngi jëm ci riidu ndaanaan baatu riidu ndaanaan moom ana wan boole ci ñëw riidu mooy ak saab ndax mm-hmm. mën nga ko def siin waaw waaw ñu ne riidug ndaanaan njeego njeego mooy juróom benn mm-hmm. tënk bu mooy lan kuwa siwa kala kuwa siwa kala jërëjëf kulla marsadin hmm. wa irsaadan yépp nga baraan baraan mooy mooy ibrahima jërëjëf shihaban rasadan wa min xalfihi rasadan yépp nga jinni jingi mooy jinni mooy sootul jinni xuluuxiya allahu kaanat mirsaadan mhm. la bil mirsaadi yépp nga fajiri allah yépp ak saat la ne riidug ndaanaan njeego nga nga fàttali tënk bi mooy kuwa siwa kawa waaye mag ñee jàmbar kuwa mhm. siwa kala xam nga baat yi boo koy dégg da nga koy yóbbu ci beneen langue te mag ñee créé baat yi ay xuruf abajadee lañ jël tënk ci boole bi ngir saa boo ci bëggee dellu xam ko kuwa siwa kala kuwa siwa kala kon mbokki seen daara yi ngeen jàpp boole woow boole wu ndaanaan dëgg ngi nii maa ngi koy doog a dégg mhm. te waxuma la dara mais ni ñu ko tënkee dafa gàtt mhm. ndax neex a jàpp tam itam sëriñ Maxtaar jëf ci leeral bu am solo boobu jëm ci riidu ndaanaan suñu ñaareelu laaj mi ngi jëm ci kusaala kusaala jigéen mooy nisaa mm-hmm. kasaadaha baraan mooy ibrahima mm-hmm. laa misaasa tëhi tëhi mooy mooy surtu tooha ñu ne jorngeel ndogaan yet mm. jorngeel la muy siin su waw la mm-hmm. ku ko dog am nga dëgg ku ko aj daanu muy kosaa day am liif laa gi ñëw di laagu jigéen ñu ne kosaa jigéen kasaadaha baraan laa misaasa tëhi jor ngeen ndogaan yett allah akbar jërëjëf jërëjëf ci leeral bu am solo boobu jëm ci kusaala sëñ maxtaar suñu ñetteelu laaj mooy coy lekk sëb coy lekk sëb juróom wa addaba mm. tuaddab mm. yépp nga baraan la addaba fatxi la addabahum xashri wa addabnaha talaaq jërëjëf addab dab jooju mooy dëb jërëjëf jërëjëf macha allah maa ngi doogum dégg <laughs> macha allah mag ñi jàmbar lañ ma ñi jàmbar lañ jàmbar lañ jàmbar yàlla na leen fay sëñ Maxtaar suñu ñeenteelu laaj mooy xuna tongu xuna tongu naayo hmm. naayo mooy ñeent hmm. xuna yi nin hmm. baraan xuna yaar xajj ak kaw ni kaw ni mooy sootul kaw ni mooy lam yekku ni la yusbixunna masadda muumin macha allah yëpp xunna la waaye nag nee na la yusbihu na nag mhm. ne day sàdd moom mu ne lay la yusbihu ma sàddaa nga moomin jërëjëf donte xunna la nag moom daa sàdd mooy suratul moomin noonu waaw la yusbihu na naadimiina nga bàyyi xel maa ngi bàyyi xel ñi nga xam ne baati turu saar yi ñaare boo koy tudd duñ am fuñ ko laajee te duñ ko mën a yóbbanti baatu baraan boobu nga tudd léegi wan saar la baraan mooy ibrahima baraan mhm. mooy baraatun mhm. baraam mooy ibrahima mhm. su nee baraan ci nun gi mooy baraatun bu nee baraam ci miim ga mooy ibrahima macha allah leer na nañ leer na nañ jërëjëf sëñ maxtaar ci leer lu am solo jëm ci xuna tongu sëñ maxtaar suñu juróomeelu laaj mi ngi jëm ci i bañ maw ni maw ni mooy dijj mooy dijj liif gu dijj liif gu dijj waaw bu maw niwul nag daa bañ dijj liif gi doo ci def ak ab tomb. doo ci mhm. def ak ak ak tikkint mooy ak amza. dëkk ci suuf. daa da nga koy bàyyi mu toj. <laughs> mooy maw ni mooy suñ ne daa maw ni nag. Mhm. mooy liif ga daa dijj. macha allah suñ ne bañ maw ni nag liif ga dañ koo toj. macha allah ñu ne i bañ maw ni njeego. Mhm. anida anida sami'tum ne wa ani isa. ba ni dijj mu ñu ne anida sami'tum jigéen. mooy mooy laa taxsaninna allaha baraan na mooy baraatun wala taxsani wala taxsaninnaa munajjuuka mhm. wala taxsaninnaa munajjuuka ma nga ca anka anka mooy anka booti mhm. an ibrahima hóot walakin ida duitum walakin ida nga xam ne am amul liif mhm. bu fekkoon dañ koo dëggal dëgg walakin ida duitum mu ne walakin ida duitum laxsaab aminin na waxdallahi macha allah bu ci nekk iga. Mhm. bopp ba daa toj. Mhm. moo tax ñu bësaale ko noonu. mu mhm. fekkee ci warsu la. boo nee. wala kinida. anida. kon moom du wax an ida sami'tum ndax loolu xafs bi la. dëgg la moo tax kon fii warsu lay. dëgg moo tax ni nga ko jànge maa ngi bëggoon dugal laaj foofu. xam nga ni nga ko jànge nii. Uh-huh. ci riwaayu warsu la. warsu bi la waaye ki koy seetaan te nekk ci xafs. nga nga bàyyiwaale ko na xam ne moomul boobu. moomul boobu jërëjëf jërëjëf jërëjëf Serigne maxtar yu bàyyi xel ne alxuraan la ay riwaayaat la xafsa ngi fi warsa ngi fi xaaluuta ngi fi yeneen a ngi fi waaye di wane rek ne moom fi mu génnee maîtriser gi mu ko maîtriser fa tabaarakallah ndax saa buy joxe misaal ca école ba mu ba mu jàngee la koy joxee koy joxe muy warsu boobu mag ñëpp daan ko jànge nag barkee ngi ci jërëjëf sëñ Baxtaar suñu juróom-benneelu laaj mooy mudda sidda deel mudda sidda deel sàpp sàpp mooy fukk ci pël waaw ci ci pël mhm. ilaa muddatihim hmm. mut daxalan yépp a nga baraan muy baraatu hmm. muddakirin jeego la hmm. muy juróom benn yépp a nga xamar fahal min muddakirin al muddasir mudassir muddat lin shiqaaq mooy mudda sadda deel mooy mudda sadda deel jërëjëf jërëjëf sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar suñu juróom-ñaareelu laaj mu ngi jëm ci uz bañ uz laañ uzlaañ naayo naayo mooy ñeent mooy ñeent ci pël ci pël mhm. uznun mhm. xuluznu mhm. nga baraan na ka anna fi uznayhi luqmaan uznun waayatun ca xaaq uzlaañ jërëjëf uznun waayatun uznun waayatun ca xaaq uzlaañ naayo uzlaañ naayo jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral bu am solo boobu sëñ Maxtaar suñ juróom-ñetteelu laaj jëm ci boole ba tey mooy xud tongu xotto ngoog daat njeego njeego mooy mooy juróom-benn mooy juróom-benn xoddurin mhm. yat mhm. yaar njoogu muy maida jenn bayaan muy raxmaan xodduran njenge mhm. muy kahfi xoddurun linsaan ci sootul insaan xottum baraan allahu akbar jërëjëf xuttongu baraan macha allah suñ maxtaar ci leeral yu am solo yooy jëm ci xuttongu nga xam ne baati pël yi mu ci indi dañuy fàttaliwaat rek ne li tax baati pël yi dugg ci boole alxuraan dafa jaar ci pël yi dugg fii ca Sénégal moo tax boole yi il la la plupart day dellu ci seen mooy naayo gi ngay dégg mooy sàppo gi ngay dégg mooy njeego gi ngay dégg mooy riidu gi ngay dégg yu ci bëree rek dafa laal ci seen làkk ndax dafa jaar ci ñoom loolu tam lu mat bàyyi xel la ci mbiru boole yi moo tax a ngay gis ku waxtaan ci boole ba mu jeexal te du ci ci dégg baatu pël loolu loolu loolu loolu mënta nekk kon day wane rek ne ñoom it def nañ ci liggéey bu rëy rëy rëy rëy ba kuy boole jël ci seen làng boole ci ndax dafa jaar ci seen làng mm-hmm. jërëjëf sëñ Maxtaar sëñ Maxtaar suñu juróom-ñetteelu mooy kaza kaza laañ laañ kaza tey jam-jam habun kaza tey jam-jam habun habun mooy juróom-ñaar ha juróom la mm-hmm. baa ñaar la mm-hmm. muy set jërëjëf kaza laañ tey jëm jëm dafa laañ la muy del ju tooy la jëm jëm la mooy kaza doonu ko kaza la doo ko sàdda doo ko sàdda da nga koy bàyyi noonu boolew ndaanaan la mm-hmm. unzur kayfa kadabu lanaam wa qaada alladina kadabu baraan mm-hmm. muy mooy baraatun haula mm-hmm. alladina kadabo hóot fa kadabat mbargaan mooy uh, uh, yusufa fa man azlamu mimman kadaba ak tara alladina kadaboo yépp nga zumar maa kasabal fuaadu ca nañ mi saal jooju kenn du ko sàdd déedéet boo ko sàddaat daanu jërëjëf <laughs> macha allah jërëjëf sëñ maxtaar ci leer am solo woowu di juróom-ñeenteelu laaj bi jëm ci kasa lañ sëñ maxtaar suñu fukkeelu laañ suñu fukkeelu laaj mi ngi jëm ci tey jam-jam waali caam waali caam waa kasa lañ tey jam-jam moom lañ doon leeral léegi kon mujjeelu laaj bi mooy waali caam waa mais sëñ bi waali caam moom waale de ñun tur lañ ko jàppe woon fii Sénégal dama xamul fu waale waale nu mu def ba dugg ci boole xam naa ka génnee boole wa hmm. seen dëkk dafa am tëgg bu tudd waali hmm. te boole wet nar a am waali kenn sant fa kenn tudd fa waali sant caam ku tëgg ba mu ne waali caam naayo waali caam naayo lu am solo la macha allah fi xawaa waa waali hmm. fi la alxawaalifi xam nga waali la waaw alxawaa su ma ko waxee mhm. ne lifi mhm. alxa mhm. bu nee waali dool ne fi xanaa kon waali yi ngi ci biir ankay mi ngi ci biir ndax dëgg alxawaali fi yaar la yépp a nga baraan waalidun an waladihi luqmaan wa waalidin wa maa da ca baladi waali caam naayo waali caam naayo baatu naayo mooy ñeent ñeent sama xel dem na ca may sa waali njoon ca Saloum <laughs> <laughs> mm. jërëjëf sëñ Maxtaar ci leeral yu am solo yooyu jëm ci wàllu boole mm-hmm. di la ñaanal di la euh, encourager itam. ndax xam-xam bii dama koy wax wax naa ko waxaat ko. Mm-hmm. dinaa ko waxaat di soññ suñu mbokk seen daara yëpp ñu bàyyi xel émission bi xam-xam bu raar a ngi nii. tey boo delluwaatoon tey ci dëkk cosaan yi nga xam ne démb fa lañ ko doon wutee mm-hmm. boo fa dem dëkk boo fa dem doo fa fekk juróom yu ko mën mm-hmm. ndax raar gu mu raar kon nañu leen ci profito di ci nafaraale di soññ sama bopp di leen soññaale surtout ñi nga xam ne ñi ngi jàngale alxuraanul karim ndax. la sëriñ Saaliwu Mbàkke waxoon rek radiyallahu anhu alxuraan bu dee ab tool la boole mooy li ko ñàkk ba ruurul te it mag ñi importé wuñ xam-xam bi indi ko ci réew mi ñoom ñoo ko créel seen bopp mën nga ne amul benn sous raison bi booy dem fekk fa xam-xam bii ndax ñoo ko créé ñoom ñoo ko créé fexe nañ ba ibdaa dara bàyyi ko fi kon nañ leen ko fonk nañ leen ko bàyyi xel sàmm ko te jëriñu ci itam ngir mën cee jëriñ génération bii di ñëw ñu xam ne kat seeni maam biñ ñëwee alxuraan fekk nañ ko fi waaye def nañuy effort it ba dugal ci loo xam ne mën a si ko coo génne te it daa bokk ci li ko fitee sëñ Maxtaar suñu émission boolee bu njëkk mi ngi nii euh, suñu émission boole mi ngi waaj a euh, jeex duñ yëkkati jotaay bi laataa ñu ko yëkkati yan kàddu ngay tëje xanaa sof ci li nga wax am ko te xamoo ko ñàkk ko te xam koo ko gën ndax soo ko amee te xamoo ko dana la réer soo ko ñàkkee te xam ko boo ko gisee da nga ko for